di la ziyaare di la bégee su ma jógee si loolu nag no foxole séeréer mais simnaa nuun xuroto ngonu fay simangolu mi caat mi na ziyaara nuun simnaa nuun jaajafalaa nuun bégeya nuun képp no seeto laya me e rek caate simnama jaajafalam ka tuna nofna ñoojo bo fayaaxo caate bégeyam xot joofiyoor ret Fimela ret Thialane anda ret bo Fatick ret sinik ret i look ret jaxaw fop daal képp no seet daal caate ziyaarama bégeyam daal tey ñu ñëw fekk la fii si équipe bi ngay contact ma yaakaar mbër bu amee contact yenn ci mbër yi dong la ñuy contact wala nu mu demee noonu. non ñun fii xamuñu loolu parce que ay ndaw lañ quoi daa am lu ñuy wut daam daa bëgg te lu ñu bëgg bëgguñ mu bettuñu parce que dañoo dañuy wax ne ree day bette balaa dara di la bette nag nga def ko ni mu war parce ñun du ñu xaar ba am combat di internet waaw fi boo boo ba xool xaaj bi dañoo am combat mais loolu taxu contact bu ñu amee combat dañuy contact bu ñu amul combat dañuy parce que dañuy dañuy gars yi booy dañuy gën di compétir. waaw parce que booy nga xam ne dañuy gën di compétir tam c'est c'est normal tam ñun ñoom bu ñu gën di compétir ñun ñu contact ak ñoom bu ñu mën a wane résultat waaye bu ñu xaar ba am combat dañuy doog a ñëw di wane suñu bopp di contact. loolu doxalu écrit loolu la jëmale écrit kanam parce que écrit ñu noonu la ñuy def esprit boobu la ñuy doxee mais est-ce que contact bi nga bëgg di mën a am fii parce que ñi ma fi gis ñëpp ay lézards laa fi gis est-ce fi gis ñoo xam te ne la mën a yëngal. waaw mais ñi ma mais ñi ma daan ñëpp ñi laa doon contactal ñëpp si arène bi ñii laa doon contactal te laa gis ñii laa doon contactal parce que dañoo dijj dëgër ko gën mu nga di peser cent cinquante kilos doo am doo am xam-xam bu bëre bëre xam-xam la nekkul doole ñëw di puusante ba génn saako non non non man li ma li ma bëgg borom borom doole mun nañ ma ko bañ a jox te ma ñëw si kii mu jox ma ko parce que làmb expérience rek doole bien vrai am na ñu si wut masse mais la am expérience dina am foo xam ne boo fa tollee expérience moo la fay génnee waaw te doo doole nag nekkul si kanam si jëmm ni nga ko gis doole si biir nit lay nekk loolu mooy doole. dama gis sa combat bi passé épreuve de force da ci am contact am ci nan nga bëree combat bi. waaw combat bi ni ma ko bëree mooy li ma bëree fii si contact yi rek li ma bëree fii si entraînement bi loolu laa ñëw wone te loolu laa ñëw appliqué te nekkul loo xam ne tam dama siy tirise lépp lu ma la def fii te te nekkul lu baax ma bàyyi ko moo gën. te su ma gisuloon fi njëriñ tam du ma fi toog parce que njëriñ laa fi gis ak lu ma yóbbu kanam moo tama toog ma man ñii ñooy sama poids lu ñooy sama lépp xeebu ma leen benn yoon ku leen ku ma leen xeebloo tam yéen a yaa xam waaye man li may sant si ñoom man xam naa ko te ñoom li ñu sant si man ñoom xam nañ ko. caat dafay seeg. ah. <laughs> li ma wax nga ko. dafay sekki. non sekki sekki ah, xëy na gars yi gis loolu rek. parce que ñoom waxuma li gars yi gis yow laa laaj. no sekki est que sekki am na si làmb sax. ah man gisuma ko de man l'essentiel daal li may liggéey li may liggéey daal moom laay yóbbu xëy na su ma dee. ñu ci bàyyi ñu ci bàyyi nee nañ boo sumee ko da leen xaw a jaaxal par rapport buñ lay gis. waaw waaw loolu parce gisee chaque jour ak par rapport bu duggee si géew parce que ñi ñooñu ñooñu ñooy nekk chaque jour man su ma duggee si géew xam nga gars yi ñuy wax ne damaa gàtt mais man gisuma ko sama ndaama gisuma ko de parce que dama leen wax man damaa digg doomu ma digg doomu mooy njoolu njoolu ma gàttu si digg bi laa nekk waaw moo tax su moo tax su ma su su ma demee si làmb du ma sax xalaat ni kii moom kii moom gën a kii moom su loolu du ma ko gis man heure man heure ma tagee heure bu ma tagee sama jaaji sama sama confiance kan laa ko jox day day mel ni man tabaatin làmb bu ngeem dugg si géew loolu laa gis chaque jour waaw te sama te sama maam dafa may faral di wax sama maam bi nekk dëkk ba sama maam bu jigéen yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam munoo bul bul mës a bul mës a jàqaloog sa sa mu góor ba ragal lépp lu mu la def fayul te foo jàpp appliqué ni la ma ko waxee. ragal yëpp yàlla la sax. waaw loolu ah mu ngi noonu l'essentiel noonu la. ñu gis ñu gis que sa combat bi bi ñu ci génnee nga daan ci ak manière mais booba léegi combat yaa ngi taxaw ñii ngi daan ñii ngi amaat combat mais déggaatuguñ la fan nga toll. waaye fi ma toll xamal li li li li li problème bi ñun li ñu ñi ñu war a bëre ñoo ñoo ñangu dañoo génn ñu bëre parce que lamb léegi loolu moo koy yàq diw daan na diw daan naa diw du ma bëreeg diw fi. gars yi dañoo war a ñëw sëgg ñu bëri ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoom Bombardier ñoom Eumeu Sène ñoom dañuy génn bàyyi ñu si làmb ji ñun booy ñoo nekk relève yi ñëw ñu nag ñum ñoom Sa ñoom Siteu ñoom Ama Baldé xam nga ñoom booy ñaa ñu ñëw war a ñëw defal làmb ji ku nekk boo xeebee sa morom naan bëriwu maag diw diw laay xaar loolu làmb ji lay jëmee kanam loolu loolu mooy làmb ji loolu moo loolu moo tax dee instant ñun ñu war a bëri suñu biir dañoo war a bëri suñu biir waaw mais keroog dama gis nga wàcc stade sa booy topp la stade bi toj nga daw di wër stade bi booy di la dëkk lan la lool waaw loolu dañ koy sant yàlla rek parce que ni ku boo nekkee si àdduna lépp looy def da ngay ñaan avancé bon nag ni ma wàccee foofu gars yi tegu xëy na ku nekk moo bëgg a bëri caat rek ci caat nekku ma mun ne bokk naa mbëri ëpp adversaire si làmb ji te loolu dama ko nangu ku nekk bëgg naa bëri caat caat tam benn mbër ne mais na nekk na tegu si yow mu raisonnable parce que ñu ñëpp ay ñu ñëpp ay ay doomu aadama lañ ñoo mente xaalis suñu biir parce que su ma ñëwee waxee ne du ma bëri diw loolu day mel ni kii dama xeeb wala bëggal ma ko lu baax man ma benn mbër ma l'essentiel mbër mbër mbër bu may wax nañ na fekk mu raisonnable ni kii kat moo caar war nañ mën a bëre man booy laa fi bëreel ñaata booy laa fi bëreel ñëw wane sama pro appliqué mais taxu ñu jox ma taxu taxu ba ñu jox ma sama morom ñi ma war a bëreel ma ñi ma war ñi mais la moo tax joxaguñ la say morom da nga amul encadrement bu baax wala boog euh, li ngay li ngay ni ngay waajee bés moo demee noonu lan moo tax amagoo say morom boobaak léegi am naa encadrement baax am encadrement bu baax moo tax seguma bëri ba léegi su ma amuloo encadrement bu baax kon ba léegi kon ba léegi bu saison bi doog a tijji laay am combat parce que ñu may kar fu nekk combat diw combat diw mais loolu man xooluma ñooñu ma leen ñi ma ñi ma leen ciblé ñoom bu ñu a ñëw ñu bëri. léegi kon VIP nga. non du ma VIP VIP amu si la man ñu gars yi woote man góoma loolu wax ay waxu naxa saxandang la rek man loolu de man sëgg bëri laa xam. mais kaw bi nga jógee stade dimance bi lundi bi ñu ne Thiatou Boy Bambara double moteur bi nga ko déggee naka la def ñëpp nee nag yaa dëkk Thiat yaa dëkk double moteur ñu ne double moteur dëkk waaw Double Moteur lan laa koy dëkkee champion la mbër la def na fi lu mbër di def mais Double Moteur man dëkkuma ko man am naa droit bàkku ñëw taxaw ne ko ponkale nañ ñëw ñu bëre. man ki nga joxoon moom dong moo fa man man man lijjanti toog na fa wala toogu fa sax man ponkale laa ñëw ñu bëre xaw ma woon dama doon minimiser man maa ko gën a bañ pour pour bëreeg moom parce que toog na fi télé ngañ jaandi ko ñu koy affaire caar mooy minimiser naa bëreeg man. est que jàppal boobu talaa xeeboon wala boobu victoire yi jug moo ne. bu boobu la ko coince daan si la ko président muy ñëw fii di wax. man dinaa leen nga ñaan invité gars yi di woote caat duwuma da mun a am bëriwul ak man waaw. mais non loolu est-ce que nekkul wax nii pour nga xaw kii yooyu noonu buñ wax nii buñ ko proposé mu jëm man l'essentiel daal man du ma bëri ak mbër boo xam ne day marché man su may bëri damay bëri mbër boo xam day appliqué. Ah, waaw. double moteur max nul dafa bëre ba temps bi jeex. de bëri bëriwuñu fa dara ah benn kële benn kële rek la am plaqué foofu lañ nekk ko war ko fi tudd sax duñ wax nañ jàll si leneen quoi man ñi ma adversaire yi ma war a bëri xam nañ seen bopp bu ah, sax mais waaw bañu ma parce que lamb la bañu ma ko man instant bu ma xool feneen laay ma ko waaw man Moussa Ndoye mooy sama adversaire te Moussa Ndoye gars yi wax bañ. Diène Kairé moo war a ñëw ñu bëre ay loolu amu fi ay Modou Anta daan na caat daan naa Modou Anta war ma loolu moo war a si làmb. mais loolu baaxul si làmb loolu laa la moo la ma ji. diw daan du ma bëre diw parce que diw moo daan diw ñaara combat la am 14 combat dama victoire maanaam 10 victoire. ay naataangoo lañ si làmb mais nekkul ne dama koy topp di ko dëkk di ko topp di bëri di nii. sa diggante ak Modou Anta nag. waaw sama diggante ak Modou Anta ba léegi. moo yéen bëri woon ngeen mu daan la. ba léegi moom moo yore revanche mais xam ne lu tax nangu nangu nangu jël revanche bi. ah yow ku la daan lan lay sóor ci yow. déggoo li ma la ma jël hommage caar boobu ak caar bi du benn. lan mooy différence bi. déggoo ma lan xale. waaw yow déggoo li ma la xale xale xale. fi mu toll amuma ci dugg <laughs> Modou Anta ngi. xale xale xale bu màgg. xale bu màgg ñu déego nekk mbëru dëkk ñëw nekkaat mbëru penc séeréer si yëpp yaakaaru fu mu toll yi jox ma bopp. loolu loolu dama dama dama am lu may ragal si kenn. barki Fapes amul. Modou Modou Anta bu Modou Anta bu nangu ñëw bëre daal ñoom Moussa Ndoye ñëw ñoom kii wala Alioune Seye Jos ku si daa ñëw. dafa sa diggante sa diggante ak soq luy problème bi. man soq. soq ñaata nga fi xam. waaw soq kooku kooku kooku day xaar kooku dafa kooku wax kat dafa bari wax. ah. dégguma li nga wax. Ah. wax kat da te moom tam day minimiser mbër joxul mbër respecté wu mbër waaw. non sa diggante ak sa diggante ak Sokh combat mënu ko dàq Gamou Gueye la daan. combat mënu ko dàq nga daan Modja. li ma la li ma la rek contre double moteur rek moo fi ne. te Modja Modja Modja Modja est-ce que daanu Modja est-ce que daanul Gamou Gueye. Sokh ma Modja dafa daan Gamou Gueye mhm. ma daan Modja. moom mu daan moom mu daan Gamou Gueye. soq Modja. yow bul taanoon soq adversaire déedéet yow déedéet déglu ma rek. sànq wax nga ne raisonnement bu jën kër yi ma mu moo moo Modou Anta daan mu daan Modou Anta loolu mun na ne léegi nag moom comme moom mi daan Gamou Gueye te Gamou Gueye moo jë daan ko xoolal ko foofu rek. yéen ñaa ñëpp yéen a bokk adversaire yi ngeen daan. waaw léegi sa diggante soq lamb mënu ko dàq. xamul lu poñ sama diggante soq lamb mënu ko dàq bu fekkee gars yi ñoo bëgg lu leer nañu nañu ko defal tournoi fenn xaalis bu ko jël ñu bëri tournant bi kan ak kan lay nekk. promoteur moo xool ku ko neex. non non non déedéet yow mi yow mi wax waxi tournant kay boo ma limalee. Thiat Boy booy baa Diène Kairé Diène Kairé. ak Moussa Ndoye moom mu dugg si. Eh. ak Moussa Ndoye moom man li wax ji wax ji mu guddum gàtt si fu mu toll nii Moussa ama neex. Diène Kairé ñett ñetti ñooñu laay xaar. Coins nag. waaw non Coins waxumay waxam quoi. waaw. caat eh, mi fuuy na léegi. non fuuy ma de fuuy ma dama bëgg a egg fi mbëri egg il est temps ma egg fi mbëri egg du ma nekk fii di bëri ay ay ay mbëri ay naxa saxandaw yu kenn xamul du ma ko def. waaw du ma nekk fi sa ay sama sama dinaa nekk su ma neexoon su ma neexoon toog fale def ñu mbëri di def toog fale caat da ngaa waa januar déy la sa xel mi dal nga ñëw fi naan diw laay bëreel du ma bëreeg diw caat bàyyi sa yi ngay def. non du question waa januar déy ma sax waa januar dañ ma ma dee parce que ma yaakaar man dama yaakaar leen waa équipe bi tamit yaakaar man dama yaakaar waa équipe bi bon nag waa équipe bi seen waaw la ñuy wéy la ñu bëgg laa bëgg la ñu ne bëgguñu ma ba. waaw loolu la jeex na tax. dooni daal kon Moussa Ndoye nga visé Diène Kairé Modou Anta. ama neex. ak ama neex waaw. ak yéen gën si ñoom. waaw ñoom si ñoom ñoom baax na. ma ñoo ñëpp ñoo ñëpp mënu ma jeexal sama moom ñoo ñëw Brendo barke alquranu karim sax lamba waxul dëgg rek. billaay lamba waxul dëgg rek barke alquranu karim wax lan nga ma wax ci combat Siteu Papa Sow ndax gis nañ Siteu sa doomu nday la sa waay la sa lépp la lan nga ma wax ci combat boobu. Siteu Papa ah, la mu mu daanu rek. waaw waaw ah, loolu laa si gis gisuma si leneen. ay nekk di commenté nga ne doomu daal mën. nekk fii di commenté ay Papa Sow nii Siteu nii ana la mu dóor ko mu daanu mu jeex tàq ñu dem ñibbi suñu yoon loolu kese la. yaakaar nga ne combat mën am doomu daal. waaw waaw bañ a bañ a ñàkk am. Hmm. ndam la. Siteu moo dàq xeex Papa Sow. dégg nga fii laa wala carapit waaw filaaw la ak est-ce que moo dàq xeex Papa Sow. Siteu ah waaye moo gën a baax góos de parce que moom Siteu moom du dóor di tëb te Papa Sow buy dóor day tëb. ku xam nga ne Papa Sow day yooru. ah day yooru kay moo tax moo tax instant bu lépp lu ñu mën suñu tànk yi duy nañ ko ba mu fees dell moo tax suñu tànk yi amul dara instant bu abi sifflé le le cinq mu xam ne lépp dëgg la. billaay wallaay bu abi sifflé ba yàlla mbinu wàcc. loolu sax jaruñu commenté fu mu toll yàlla yàlla musal si cat rek. naka nga gisee làmb fi mu toll nii. waaw làmb fu mu toll nii moom li ñu ko gisee moom dañuy ñaan yàlla mu delluwaat fu mu nekkoon rek mu fu mu nekkoon ay 2000 ay côté 2001 2002 xam nga année mu dellu si waat fu mu nekkoon. parce que làmb yi parce que fan yii passé am na ko doon wax Ibakan mu ngi ko doon wax man yàgg naa di ko wax mais gars yi bàyyiwuñ si xel nekku nag di contrôler gars yi def wala nii. parce que làmb ku si nekk sa sa sponsor da nga bëgg mu génn xam nga li ñu am si pay per bi nag ñoo xam beneen bi geste bu baax la mais lamb da ngay toll si mbedd bi sax nga tase ne ko stade daal ñu ne kan kan mooy bëre ñu ne ko diw mooy bëre ñu ko ah, yëguñu ko parce que gisuñu publicité bi xam nga loolu lépp day rey lamb waaw ñu ñu gën ñu gën si vee bu baax a baax baax waa CNG itam ñu ngi bëgg a yàq lamb ji quoi ñu ngi bëgg a lamb ñu yàq lamb parce que amuñu droit mbër wàcc mbër am na droit wàcc dem fecc dem tëkkante mais boo wàccee une deux trois ñu lay yéegal si kaw loolu mooy la xanaa ñoom ñoom règlement yi ñu def ñoo bëgg a yàq lamb fu mu toll nii ñoo règlement yi ñoo bëri da nga ne salaamaaleykum sax nga téye benn pepp suuf sama ñun delloo ko wala ñu ne bàyyi ko jógal loolu loolu loolu doxalu làmb quoi làmb dañ ko bàyyi mu nekk fu mu làmb affaire cosaan la aar la. làmb bi laay aar la làmb instant yi mbëri di bëri def seen débat di bàqu loolu la ñu am na ñoo xam ne lu bëri la moo leen di indi saat am na ñoo xam ne dëkkante mbëri moo leen di indi saat am ñoo xam ne bàqu mbër am na ñoo xam ne fecc bi xam ne animation bi am na am na ñoo xam ne bu rek ñibbi mais léegi day mbër mbër day bàqu ay deux minutes ñu ne ko jeex na jeex na jeex na te loolu neexalul làmb neexalul làmb barke alquraanu karim kàddu yu mujj lan lay doon ñu tàggatoo balaa mu ñëw kàddu yu mujj sax damaa bëgg kee dugalam boppam boppam tuuti. kay dugalam sa bopp tuuti rek. non yow dama fi ñëwaat ñu waxtaan waa damaa bëgg gis gis xam naa ne gis nga yóbbante yi la la li la caatu ngéwél jox lan nga ci wax. aouzu billahi mina sheytaani rajim gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa équipe bi yëpp sant NGB bi sant waa kawla Kër Madiabel Lamara Pane Sadira waa Waalo waa Jokkul Ganket waaw di nuyu waa Casamance waa Tangori waaw bàyyiwuma kenn waaw di nuyu sama président staf muy eh, Aydara Karara waaw di siyaar ñëpp daal. lan ngay wax Thiatou fan yëpp gis naa ko muy dugal ay vidéo di wax sama diggante maak moom mu naan ay sama jeune baaxul. waaw mu ne mu ne pas Dakar la dinaa ko wax pas Dakar. ku ku yàgg si néeg bu lëndëm moo lay won foo toogee waaw mu xam ne euh, moom dafa màgg bëri man dama tar bi bu mhm. mhm. mhm. lu muy sàcc na ko ñëw jël su nekkee dafa am doole jarul sàcc. moom moom waaw bu ko jaay ko def ko ci làmb. waaw jaral mais jaral na ma lu ko raw jaral na ko jaral na ma lu ko raw day day perte. kon ngeen dinaa ko dóor dinaa ko daan. dem ngéwél te dina danañ bëri ba spectacle yëpp kontaan ma daan ko. waaw fecc fecc mi daanu wax bi. waaw daanu daanu. yow dama la dama la dama lay daan ba pare teral la parce que géwél nga te man sama dama am ay xaritu xaritu géwél dama lay daan ba pare teral la. ñu baatere dama lay caat. Euh, soo soo soo soo amoon kàddu yu mujj caat. boo amoon kàddu yu mujj. lan ngay tàggatoo ñu tëj. waaw amoon kàddu yu mujj mooy li may wax rek. instant moom gars yi moom xat-xat gaaw gaaw yàgg yàgg dañuy ñam cinquante cinquante bi fifty fifty yi ñam si. amul sax ragal. Eh, amul sax ragal fifty fifty foofu ñam si moom gars moom fifty fifty foofu mu leer nañ waaw muy musaandooy Ndoye muy Diène Kairé muy keneen ak keneen soog googu moom foog ñu ñam si fifty fifty amul leneen. am eh, taay da yung booy dama sonn si booy ndaw yi. am am taay da yung booy je suis fatigué si les petits lutteurs. vraiment mais avec seen potentiel. et je je les je voulais affronter je voulais battre. je suis l' de NGB de l' de Dionewar l' de Gandoul. oui je ne peur rien. je ne peux de rien je suis un lion. waaw Moussa Bonne laabu taako. waaw waaw li wax li soosee di wax lamboo naa la diya. lamboo naa la diya. Uh-huh. ñu ragaluñu loolu. da ngeen di jël affaire ñu defal leen lu métti. cinquante cinquante bi tolloo tolloo. oui bien je suis je suis prêt pour tous. oui tàggatoo ñu. maay sant ñëpp di bëggee ñëpp. sant yaa foole séeréer fop képp ku nekk séetoo la amee di sant ma bëggee am. di sant di sant waa Bentali waa Ñaatali ñëpp. xam nga di sant sama coach Baye Gueye maa ngi koy sant bu baax di sant suñu coach yi ñoom Perda ñoom Peg ñoom Mbaye fay xam nga di ñaanal Mbaye Faye yàlla na ko yàlla may tane ba mu gën dugg suñu biir xam nga di sant coach yëpp ñoom Père Zil ñoom Père Jaxate bàyyi ñu kenn ak ñoom Lion gaa yëpp booy fi am combat bi yàlla na yàlla may ndam ñoom Yaro baax ñoom ñoom Sabala ñoom Janka ñoom Paul Maurice ñoom Boy Daxa ñoom Modou Fall gaa yëpp ñoom naxa saxan nag yëpp yal na yàlla may ndam waaw bilaay walaay ñoom diga ñoom ñaa leen yàlla may ndam instant waaw ñoom ne doole koy taye rente ma fañige ñoom ne doole koy taye rente ma fañige ade boya gulame lambe ne lola waaw